الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamualeykum sunu mbokki auditeurs yi ñuy déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci émission bi ñuy duppee kàddu gu sell gi may nuyu nag ñépp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu ñépp ñi yeewoo fii ci biir Sénégal di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu ci internet bi te nekk bitim réew niñ koy faral di defee saa su nekk dañuy ubbi téere bu sell bi ñu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi téere bi nga xam ne fa lañu jàngalee boppam téere bi nga xam ne fa lañu jubbante fa lañu yeddee fa lañu yeewee ngir ñu xam ci yan anam lañ ko war a jaamoo ak lan moo war a doon sunu taxawaay fii ci kaw suuf may ñaan yàlla sunu boroom ci jëmmi Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist lii nga xam ne ñu ngi koy wax lii nga xam ne yéen koy dégg mu doon yokkute ci bépp nopp boo xam ne bépp jëmm joo xam ne yaa ngi koy déglu ma koy ñaan ci turu Yeesu Kirist yàlla sunu boroom wax ak ñun ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal ba ñu jagleel waa Galat ci aaya juróom saar fukk ak juróom benn ba ñaar fukk ak benn yàlla sunu boroom wax ak ñun te lii la wax nee na ku topp sa nafsu nii ngay jëfee njaaloo xalaat yu bon defi ñaawteef ak say cër xërëm luxus noonoo ak xuloo ñeetaan xadar diiroo mbagg féewaloo ak ak xaajaloo kiñaan màndite ak xawaare ak yeneen yu ni mel léegi nag maa ngi leen di artu ni ma ko defee woon ñiy jëfee noonu duñu am cër ci nguuru yàlla yàlla sunu boroom moo ñu wax loolu mu nekk ci kóllëre gu bees gi nekk ci bataaxal ba ñu jagleel waa Galat ci aayu juróom sar fukk ak juróom benn ba ñaar fukk ak benn yàlla sunu boroom di tudd jukko yi nga xam ne mi ngi nekk ci jaamam bi topp bakkanam biy def li ko neex moo tax ca tàmbaleenu waxtaa wax mi mu ne ku topp sa nafsu nii ngay jëfe ci jëf yooyu nag nga xam ne ci ay jukko la lalu yàlla sunu boroom lim ci yu bari wante dama bëgg rek ñu bàyyi xel ci benn boo xam ne mi ngi ci sunu dëkk mi ngi ci biir àdduna te mi ngi yàqal jaam yi ñu doon lu bari ci sunu diggante nee na kiñaan tudd na kiñaan te boo xoolee tey ji ni àddina di doxee boo xoolee sunu Sénégal ni muy doxee gis nañ ne kiñaan bari na fi doole nit ñaa ngi iñaanante yàlla sunu boroom nag ne jëmm jooju nga xam ne jaamam jooju nga xam ne iñaan mi ngi ci yow kiñaan mi ngi ci yow yàlla sunu boroom nee na kooku nafsoom la topp te kooku du ngis walla boog du am cër ci nguurug yàlla maanaam palaas bu sell boobu nga xam ne yàlla sunu boroom defal na ko jaamam yi nga xam ne déggal nañu ko yàlla sunu boroom nee na sama jaam jooju nga xam ne kiñaan a ngi ci moom kooku du fa am cër lu tax kiñaan nekk loo xam ne war nañ ci bàyyi xel te ñaan yàlla sunu boroom mu soril ñu ko ci sunu dund mooy yàlla dafa ñu indil ci téereem bu sell bi ay jaamam yi nga xam ne looloo ngi ci woon ci ñoom ñu mujj jëf jëf yoo xam ne yàlla jox nañu ko ngir artuñu ngir yeeñu ngir yedduñu ngir jàngal ñu ngir ñu moytu kiñaan ci ñun yàlla sunu boroom diñu wax ne kiñaan mi ngi ñëkkee feeñ bi iblis ñëwee fekk sunu maam aadama ak awa ñëw ëlëm leen ba bëgg a dox seen diggante ak yàlla sunu boroom ndaxte kiñaan moo tax mu jóg fekk ñaar ñooñu nga xam ne yàlla sunu boroom sàkk na leen te jox leen ñu nekkoon ci palaas bu sell bu baax boobu moom mu ñëw iblis tàmbali di wax ak ñoom di wax ak ñoom ngir lan nasaxal diggante ba ñu amoon seen diggante ak yàlla sunu boroom ak aji sax bi kon ñu gis ne bi mu ñëkkee feeñ jukko jooju bi mu ñëkkee feeñ ci iblis la feeñee ci seytaane la feeñee mu ñëw fekk nit ki nga xam ne yàlla sunu boroom daf ko sàkk ci melokaayam mu ñëw def kémtalaayu kàttanam ànd cee kiñaan ngir nasaxal diggante boobu nit amoon ak aji sax ji bi loolu weesoo yàlla sunu boroom di ñu wax ne aadama ak awa am ñaari doom taaw bi di kayen caat bi di abel yàlla sunu boroom di ñu wax ci kóllëre gu njëkk ga ñu koy wax ci nasaraan ancien testament ci xaaj ba ñu tuddee njalbeen ga ca aaya ñeent sar benn ba fukk ak ñaar li nga xam ne xewoon na diggante kayen ak abel diggante mag ak rak yàlla sunu boroom di ñu wax ne daf leen waxoon ñu def sarax ba ñu defee sarax sa abel ma nga xam ne moom moo doon caat ba mu def sarax sa na ko yàlla sunu boroom bëggee kayen nang jàpp ne nang sarax soosu moom mën na ko defee ni mu ko xalaatee bu boobaa yàlla dana ko ko nangul ba ñu defee seen sarax soosu yàlla sunu boroom di ñu wax ne bi abel ñëwee mu nangul ko sarax soosu nga xam ne moom abel caat gi daf ko def ni ko yàlla sunu boroom bëggee ba kayen ñëwee yàlla ne ko déedéet li ma la waxoon li ma la digaloon defuloo ko kon sa sarax si duma ko nangu mu jëlee ca mer mer goo xam ne daf ko jural mu iñaane rakam googu doon abel yàlla sunu boroom wax ak moom yàlla wax ak moom ñëw yedd ko ne ko kayen lu waral nga ub sa kanam lu waral nga ub sa kanam bu dee lu baax nga def de waruloo tëj sa kanam wante bàkkaar a ngi nii di la yeeru waaye ëpp ko doole ba loolu amee moom kayeen ànd ak rakkam ñu dem ca àll ba mu dal ci kawam rey ko tuur deretam loolu mooy li nga xam ne moom mooy nit ki ñëkk a faat ci biir àdduna ba yàlla sosee suuf sos asamaan ba yàlla sàkkee sunu maam aadama ak awa ñaar ñi ñu ñëkk a am taaw ba di kayen caat ga di abel yàlla sunu boroom di ñu wax ne ki ñëkk a tuur deret ki ñëkk a faat bakkan moo doon kayen te bakkanu rakkam akkan la jël te la taxoon mu jël ko mooy da ko xool iñaane ko da ko xool iñaane ko kiñaan googu nag jur mu dem ba jël bakkanam ba jël fanam ba loolu amee yàlla sunu boroom ñëw wax ak moom ne ko nag lii nga def ànduma ci wante ñaar dana am ba ca njëkk mooy danga tumuranke ba ca tegu mooy danga torox danga doon ab doxandéem yàlla sunu boroom indil ñu loolu di ñu yedd yedd bi mooy lan bu dee kiñaan mi ngi ci sa xol kon say nopp dana tëju sa xol dana tëju ba dootoo mën a dégg yàlla sa boroom ndaxte ba loolu amee ba nga xamee ne kayeen tàmbali na di xool rakkam googu ak bëtu iñaan yàlla dafa ñëw wax ak moom ne ko waa looy upp sa kanam gi nii lu waral nga mel nii lu waral nga mer ndaxte bu dee lu baax ngay def kat doo mer doo upp sa kanam doo tëj sa kanam wante maa ngi lay wax ne bàkkaar a ngi nii sa bunt di la yeeru di la wut wante yow ëpp ko doole kon yàlla yedd na ko ndaxte yàlla sunu boroom gisoon na fa nga xam ne fa la kayin doon jëm yàlla sunu boroom gisoon na jukko jooju nekkoon ci moom lu bon li mu ko mën a jural yàlla sunu boroom ñëw wax ak moom laata dara di xew mu ñëw yedd ko ne ko déet bul topp lii nga xam ne mi ngi ci yow ëpp ko doole du mooyu ko ubbil sa kanam gi lii nga xam ne yaa ngi koy mbébét te mi ngi sa xel bàyyi ko ndaxte bàkkaar la mi ngi lay yoot fa mu la jëmee baaxul wante donte yàlla sunu boroom wax naa kayen yàllaa ngi ñuy wax ci téereem bu sell bi ne ba ñu nekkee ci àll ba moom kayen ak rakkam abel dafa dal ci kawam faat ko tuur deretam jël bakkanam lu ko waraloon kiñaan yàlla wax ak moom mënul dégg yàlla aji sax ji wax ak moom mënu ko dégg ndax li nekkoon ci xolam ëpp na ko doole ba nga xam ne mënatul dégg yàlla sunu boroom yàlla mi nga xam ne moo ko sàkk ñëw ci moom yedd ko wax ak moom li nekkoon ci moom muy kiñaan googu ëppoon na ko doole ba nga xam ne mënul woon déglu yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom di ñu yee foofu di yee ay jaamam di ñu yedd di ñu wax ne bu dee kiñaan a ngi ci sunu xol bu boobaa sunu xol dana tëju sunuy nopp dana tëju ba lépp loo xam ne yàllaa ngi ñu koy wax dootuñu ko mën a dégg loolu mooy li nga xam ne mooy li ñëkk a bon ci kiñaan jëmm ji nga xam ne da nga iñaane nit li nga xam ne moo lay ñëkk a dal mooy dootoo mën a dégg yàlla yàlla dootul mën a wax ak yow ba nga dégg ko yàlla dootul la mën a yedd ba nga dégg ko lu tax ndax dafay bari ci yow day fort ci yow day am doole ci yow ki ñaan googu ba nga xam ne dootoo mën a dégg dara dootoo mën a yëg dara moo waral bi yàlla ñëwee wax ak kayen ne ko defal ndànk ndaxte lii nekk ci yow baaxul moytu ko du mooyu ko sukkul ci kanamu yàlla ne ko kat maa ngi jéggalu dimbale ma lii bu ma ëpp doole jàppale ma ci maa ngi koy tub déedéet dafa wéy di fas kanamam dafa wéy di fas kanamam ba mu demee ca àll ba moom ak rakkam mu dal ci kawam jaay ko doole faat ko tuur deretam yàlla sunu boroom nag ne ko loolu du la jural lu baax mu wax ko ci téereem bu sell bi ci njalbeen ga ci aaya ñeent saar benn ba fukk ak ñaar mu ne ko da nga doon doxandéem danaa def ci yow ab màndarga koo xam ne ku la gis ne raykat baa ngi ne la ñépp lay xàmmee te boo liggéeyee du barkeel yàlla ne ko danaa def ci yow màndarga goo xam ne foo dem ñu gis la xàmmee la ne raykat baa ngi nële rax ci dolli boo liggéeyee du barkeel boo bayee du barkeel boo rëbbee du barkeel boo loo def du barkeel ndaxte tuur nga deret deretu koo xam ne defu la dara te li ko indi mooy lan mooy kiñaan moo tax yàlla sunu boroom ne képp koo xam ne kiñaan a ngi ci yow kooku doo am cër ca nguurug yàlla ga doo am cër ci loolu ndaxte la mu lay jural mooy tax dañ lay dàq ba doo am cër ca nguurug yàlla te àdduna bari na kiñaan Sénégal iñaanante fi bari na te muy doon loo xam ne lu dëggu la kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
Hallelujah. Hallelujah. الإله قدير يمنون Hallelujah. Hallelujah. الإله القدير يملون Hallelujah.
kon mbokki auditeurs yi ñu gis foofu ne yàlla sunu boroom mi ngi ñuy indil li doxoon diggante Kayen ak Abel ak jukko ju bon jooju nga xam ne mi ngi woon ci Kayen ba mu waral mu faat rakkam te ñoom ñaar képp la woon yàlla sunu boroom di ñu jàngal ñun ay jaamam ne jukko ju bon jooju di kiñaan bu nekkee ci ñun kon ngalla ñun ndaxte danañu ëpp doole ba dootuñu dégg li nga xam ne moom lañu aji sax ji di wax yàlla sunu boroom nag indi ñu ci ay firnde yu bari ci téereem bu sell bi ci biibal bi yàlla sunu boroom di ñu fàttali ci kóllëre gu njëkk ga ca njalbeen ga ca aaya fanweer ak juróom ñaar te bu ñu delloo itam ci kóllëre gu bees gi ca xaaj bañ naan jëfu maanaam jëfu taalibe yeesu ye ca aaya juróom ñaar ci saar juróom ñeent yàlla sunu boroom a ngi ñuy wax foofu ne maam yooyu dañoo iñaane woon yuusufa ba jaay ko ni ab jaam yàlla sunu boroom dañuy indil li nga xam ne moo doxoon diggante yuusufa ak ay magam ba nga xam ne dañ ko mëj a jàpp bëggoon ko rey ñu faf dem jaay ko jaam ñu yóbbu ko ci dëkk bu sori moo doon misira yàlla nañu lu waral loolu lu waral ñu mën a jël seen deret ki ñu bokkal seen deret ñu bokk ak moom ñu jàpp ko mu nekk xale bu ndaw ñu ëpp ko doole jël ko jaay ko def ko jaam yàlla sunu boroom nañu lu waraloon loolu kiñaan képp moo nekkoon ci maam yooyu maanaam magu yuusufa ya ba ñu jaay ko def ko jaam kon ñu gis mbokk auditeurs yi jukko jooju di kiñaan fi mu ñu mën a yóbbu nga jël ki nga xam ne yéen a bokk deret ki nga xam ne yéen a bokk kër ki nga xam ne yéen a bokk lépp nga àttan koo jël jaay ko def ko jaam sànk ko mu mën ci ñàkk bakkanam wala mu mën ci jëlee coono yoo xam ne ah ngalla moom yàlla sunu boroom dañu wax ne boo gisee magu yuusufa yooyu def lu mel noonu lu ñaawee loolu dafa fekk ne kiñaan rek moo ko laloon yàlla diñu yee ci diggante buur bi ñëkk a sampu ci biir bani Israël muy Sóol ak Daawuda yàlla di ñu wax ne dañu dem ca xare ba ba ñu yeggee ca xare ba ku nekk wone fa sa njàmbaar ba ñu dellusee jigéenu dëkk ba di way naan ah Sóol de rey na junni wante Daawuda rey na fukki junni ba Sóol déggee lu mel noonu mu tàmbali ci xol gi di am kiñaan di kiñaane daawuda yàlla sunu boroom di ñu wax ne jukko jooju mooy nekk ci moom ba mu def daawuda ab noon di ko topp ay at fu mu dugg mu fekk ko fa ngir lan ngir faat ko mu jël li des ci dundam jagleel ko lan danaa faat daawuda lu ko waral kiñaan yàlla sunu boroom di ñu indil nettali boobu ci téereem bu sell bi ba daawuda taxaw di ko tin naan ko sama baay sool man de sa dag laa lan laa la def ba nga may fitnaal ba bëgg ma rey wante sool bañ a dégg li ko yàlla wax bañ a dégg tin bi ko daawuda di tin mu koy wut di ko wut di ko wut giirug dundam ngir mën ko faat nax lan ki ñaan ba loolu mëjë nasaxal nguuram moom sool gisatul dara xoolatul dara lu dul naa faat waa ji ndaxte tagg nañ ko foo xam ne jàppoon na ne moom sool lañ fa waroon tagg yàlla sunu boroom indil ñu loolu yàlla sunu boroom wax ñu ci injil ci xaaj bi ñu jagleel Mark ci aaya fukk ak juróom saar fukk nee na ka nga xam ne moo doon gouverneur doon pilaat ba ko magu yahuud yi indilee yeesu ne ko kat dañu bëgg nga faat ko ndaxte dafa wax dafa def nee na pilaat xam ne kiñaan rek a tax kilifa diine yi jébbaloon ko yeesu yàlla sunu borom mi ngi ñuy indil seede boobu nee na ba ñu jàppee seydina isa almasi bi yeesu kirist indi ko ca kanamu ka nga xam ne moo doon àtte ñu koy sosol di ko tuumaal pilaat dafa leen xool gis ne loolu lépp li ko laloon mooy lan mooy kiñaan te yàlla sunu boroom mi ngi ñu koy wax ci injil xaaj ba ñu jagleel mark ci aaya fukk ak juróom saar fukk ba loolu amee mu ne leen tànn leen ñaar yeesu kirist mi wala barabaas ndaxte ñoom dañu amoon aada boo xam ne jamono jooju saa yu musaana egsi ah pilaat da leen di wax ne tànn leen kenn koo xam ne danaa ko goreel ci ñu ma tëjoon kaso kuñ ci mën a tànn rek mu bàyyi ko ba mu leen waxee loolu ñu leen ñaara am barabaas wala yeesu te barabaas ndekkoon wéyu goo xam ne da daan reye da daan jël lu mu moomul te amoon doole àndoon nag nag gàngoor bu takku ñu koy wër ba mujj ko jàpp ba leen pilaat ne tànn leen ci ñaar ñii kii nga xam ne mooy yeesu kirist deful dara ak kii nga xam ne mooy barabaas moom kat mooy mooy woyu bi nekk seen biir sonal leen ñu ne barabaas lañu tànn yàlla sunu boroom di ñu wax ne tànn nañu ko bon sosal koo xam ne deful waxul li ko waraloon mooy kiñaan kiñaan yóbbu leen ba nga xam ne lëngoo nañu ak ku bon ngir fexeel ku baax lëngoo nañu ak ku jubadi ngir fexeel ku jub te loolu yàlla sunu boroom mi ngi ñu koy wax Yeesu Kirist di ñu wax ci injil ci xaaj ba ñu jagleel Mark ci aaya juróom ñaar saar ñaar fukk ak benn ba ñaar fukk ak ñaar nee na ci biir ci xolu nit la xalaat yu bon di jóge ki ñaan coxor ak ñeetaan nee na loolu mi ngi mi ngi tàmbalee ci sunu xol di ñu wax foofu ne ki ñaan day yàq nit mu ñuy yee nee na nag ci sunu xol lay tàmbalee te lépp lu tàmbalee ci xol rek day am doole bu dee ragal yàlla mi ngi ci sa xol day am doole bu dee kiñaan mi ngi ci sa xol day am doole lépp lu tàmbalee ci xol rek day am doole moo tax yàlla sunu borom di ñu wax naan bëgg leen ma ak seen xol gépp ndaxte xol mooy nit Yeesu Kirist nag ne jukko yu mel noonu yu demee ni ki kiñaan soxor ak ñeetaan nee na loolu ci xol lay tàmbalee te kiñaan day yàq nit kiñaan day yàq ak ab askan bu dee kiñaan dafa bari ci nit ñi askan boobu nit ñooñu nekk askan ba ñu doon day yàqu day yàqu day mujj tas ndaxte dana féewale nit ñi reyante dana fa bari reyante dana fa bari iñaan mooy waral askan yu bari yàqu mooy waral itam nit ñu bari yàqu kiñaan feebar la feebar la su ma ko doon méngaleeg feebar ci tubaab dama naan cancer la yàgg-yàgg dalay rey yàgg-yàgg dalay yàq te du la jural lu dul lu baax du la jural dara lu baax lu dul lu bon kiñaan amul dara lu baax loo xam ne dana la ko jural moo tax yàlla sunu borom di ñu yee ca njalbeen ga ba mu waxee kayeen yedd ko kiñaan gi nekk ci moom xolam tëju noppam tëju ba mënatul dégg yàlla sunu borom boo xoolee Sénégal am na yu bari yoo xam ne mi ngi fiy fés lu ko indi kiñaan gis nit mu am nga tàmbalee wax lu bon ci moom danga ko iñaane gis nit koo xam ne kat ah dafa ñàkk nga koy ree loolu kiñaan la nekk ci bërëb war a uuf nit ñi tettee leen gunge leen nga bañ ko def loolu kiñaan la nga gis bunt boo xam ne war nga ko mën a ubbi ngir nit ñi jariñoo ci nga tëj ko ba ci ay léeb yu ñuy léeb boo koy xool ba ci biir kiñaan moo tax ñu koy léeb dañuy wax naan looy dàq mu dem ci biti dàq ko mu dugg ci sa kër déedéet loolu kiñaan la kon yàlla sunu borom mi ngi ñuy yee yàlla sunu borom mi ngi ñuy yedd yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax naan ñu jukko bu mel noonu moytu leen ko bu leen sàggane ba mu tàmbalee meññ ci yéen kiñaan moo tax yu bari ñu koy gis tey jii ci sunu dëkk di ko gis ci biir àdduna kiñaan moo tax yërmande amatul kiñaan moo tax ñuy tëj sunu buntu kër ba miskin yi duñu ñëw ba yegsi ci ñun nit koo xam ne kiñaan mi ngi ci yow boo gisee ku la ëppale mu def la tiis wante boo gisee koo ëppale ah danga ciy bëgg wante képp koo xam ne nangu nga jukko jooju nekk ci yow ba mbenj ci yow xamal ne yaa ngi bokk ci booru saytaane moo tax yàlla sunu borom di ñu yee moo tax seydina isa almasi bi yeesu kirist ba ko waaj a laajee ca injil ca xaaj ba ñu jagle luk ci aaya fukk saar ñaar fukk ak juróom ba ñaar fukk ak juróom ñett ne ko naka laay def ba jot ci nguurug yàlla maanaam ba dugg àjjana mu ne ko bëggal yàlla te nga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp bu dee bëgg nañu dàq kiñaan ci sunu xol nañuy xool ñeneen ñi ak bëtu laabiir nañuy fesal mbëggeel mu ne ko ñaar yi moo am bëggal yàlla te nga bëgg sa moroom bëgg ndoomu aadama ne yow ni nga bëggee sa bopp képp koo xam ne mbëggeel a ngi ci sa xol doo yéene nit lu bon doo ko iñaane ci dara kon yàlla nañu yàlla musal ci jukko jooju yàlla nañu yàlla sunu borom dàqal jukko ju mel noonu ci ñun te loolu bu dee mi ngi ci yow ñaanal yàlla sunu borom mu dindil la ko te nga def sa kéemtalaayu kàttan ngir mu dañ boo gisee ku am nga ñaanal ko ne yàlla sunu borom gën ko yokkal gën ko may loolu lañu yàlla sunu borom waxta ci loolu la ñuy woo te maa ngi leen koy fàttali askan boo xam ne kiñaan dafa nekk dafa bari askan boobu yàqule na kon yàlla nañu yàlla musal ci jikko jooju ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ kon mbokki auditeurs yi loolu moo doon waxtaanu tey wi ñuy ñaan yàlla sunu boroom nag ah moom mi ñu yedd tey jii loolu nga xam ne wax nañu ko ñu dégg ko ba dàq jikko ju mel noonu ci sunu xol ci jëmmi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amiin
mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
إن